ma bàyyal la wan ma ni ma yaa xew. du yow mu narul bismillah ñu dawal loolu moom narul bàyyal la loo wax. Euh, dafa dal salaamaaleykum xam naa daal na dem rek. waa ayca ko na dem rek. ayca ni ngeen dem ba maare. ngeen baatu islaam yeneen bu ko mas a sasaam amina yaa ma nga dëkk bu naan ab waa kenn mënu koo ñaawal lay dëgg lay dëgg sa turandoo alimatu saadiya alimatu ooy turam ma nga dëkk dëkk bu naan saadiya bi ànd ak ña war a nàmpal ci Sidina Muhammad xanaa xamoon ni yoneen moom bis boobee jigéen ñi ko mos a jox weenam bañ na ba mu des alimato ay weenam yëpp yi dafa amoon laago laago ba dara warul ko woon ndax kenn wuru cee nàmp ci Sidina Muhammad kere ba sa turandoo yëkkatee weenam ba joxoñ ko Seydina Muhammad laa nga ba daaw wér ca saasa kenn gisul dangeen ba meew maa ngay njëkkanteeg laaj ma ñu Seydina Muhammad sa turandoo di ngeen dem ba maare di ngeen daw mbaa ngeen de mbaa ñu dugul islaam yenn bu ko masa songu xeer di ngeen daw ba rakam mooy saabaam jur na doom tuddee yoneen mu faatu mu doom tudde ko seen saamaam nag jël na doomam ju jigéen sa doom yi soxna Aysa may ko seen naamaam nag kii mooy xaritam mooy rakkam mooy ngoroom mu mel ni sëñ Bamba da koo yëg yëkkati xale maam def sa daaja ni Abubakarin Sadiqin xusuusu xiiwal wafaa rafiya nabi al mudawa xaara an ba wooy mbay di ngeen ba maare di ngeen daw mbaa ngeen dee mbaa dugul islaam yónneen ku ko masa songu xeer الشمس نور والبركة والشمس نور على ليلة صلاة الله على صلاة الله عليه آه مم. joom jotaale waaw waaw ak ak ñun turandoo yi bi ñuy turandoo. Seydina Mama asrafal fal xale Muhammad Baay yow sa turandoo. moom moo yow sa turandoo moom mooy Mustafa. Zakaraay ibn Abdalaay xeeru xarfulaay Mustafa Muxtaar. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boppam ba mat ba tam yarey. boo ko xoolee weeri ni xuy joom ni naaj muy door a xëy yonent bi tànkam ya taaru muy seen si la jor da nga daw ba maare di nga daw mbaa ngeen dee mbaa duggul islaam yonent bu ko mas a songo xeex ngeen di waxtaane Seydina Muhammad ay Amadu fanaan ciw doj fanaan ciw xuntu lu ne mu koy daj abada ko ci biir sarwaan mamadoo sànni nan ko tooke teewu ko doy waar Seydina Muhammad sa turandoo bokk ne jàkk kanamam nga daa wërngalu bët ya weex mel ni dañ koo tusngal bakkan ba ne soleet na yaa nite ma taxaw gémmiñ ga yaatu siñ ma ñuul kukk ndax ñamal yàlla la yor bi wax a jaam ñi leer yeey gindi ci gémmiñ gi mooy sunu saraanga isa takala xarajat nuuran min bayni saraaya lutiya sa turandoo sidna Muhammad Muhammad ñetti damay baat la am ba sa ca bopp mbaag ba ca mbagg ma bokkute ba ca digg ba sidna Muhammad digg la dafa sew suut ni négal tama dana ba yaatu boo ko seenee muy dem mbaa muy dox ñëw mbaa mu toogandoo mbooloo root boppam ba ngay seen loola sa turandoo sa sëriñ sa xarit si jaaji Maalik nee na wa innahu isharana law nasatana abana nuura la la diggante daw mbaa ngeen de mbaa dugul islaam yónneen ku ko masa song daana mmm. wujud wujud wallam yakul lana ruku an wa sujud genn labi sidna Muhammad du war ak moom ay wax wax woon na saabaram Seydina Muhammad mi may way moom la góor ga waye nan ko alhamdulillahi lazi anaara al wujud bi talaati xaybariya سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمر الإداية وكوكب الإناية ربانية مصباح وصف دين الإسلام ما تولوا مولاه وإمام المرسلين ذوي المراتب العليا kenn du nabi hmm. Seydina Muhammad dëgg la moom rek a tudd set set ah. daqul deret daqul deret nabi xetam neex ah jëmmam rafet bëtam ya tusgal moo ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na yàlla sàkke aw dënnam hmm. sama turondo yaatal ko sol ca ay xikam mbagam ya sekk xaar xaatimam jooja waay ku xool xaatim ba te xefar Seydina Muhammad sama turandoo ñuulul weexu ba mel ni meew waay waay mooy kilifay géew bu mu teew waaw su masaana muuñ gémmin ga day melax rasul xonkul ba mel ni xawar Seydina Muhammad reewam du neex jay fekk si kalam bu leer delis na see jooja waa waaju ko seen ndaw jébbalu see ay suñu ñaanu laamu soxo bay àll jóg kaay ñu jaar nii balay jant bee sox yoon ñu gàddaay wuti yeneen bee ndam ci yonent bi loolu dëgg la bay Allah daxarasan wawa dalal xadamay jéere min al najmi axdaay bal min al xaysi akram jalilun mat digal giir ga nee na ay doomam ga nee na saadal waraas wa saadal la akbar silaahuna hilaala tukarar kalimati ma xaaxaat sax laakin ma fa sabiha kun taqiya wa hiya laa ilaaha illallaah man faxaloo kafaaru déglu leen gaay déglu leen déglu leen ñu waxtaane yonent be ay baay Allah bu ma dégloo tey wax la kan mooy sa waaja Seydina Muhammad asrafal xalqi xanaa xamoo ni Seydina Muhammad bi mu juddoo la ma nabi dojey leer ni ay weer Seydina Muhammad hmm. sama turandoo ba muy juddoo la safara faris bépp fay seytaane yëpp toog di say iblis naan ki juddu tey ji moo ma xatal rasulullahi dina ma la Seydina Muhammad saadu abi saadu man taqallaqa waxuquwoo bi say taqaqaqa sama sëriñ seex na seex sax ni ki la génnoon àdduna le vingt deuxième jour du mois de ramadan la seex na naan yaa nasu anal xabral xulafaaw fa xuli laa ilaaha illallaahu laa laa laa laa laa laa laa laa tattaxi al xubi maa laa zakir bi waxtati ya woo fa xuli laa ilaaha illallaahu wuji boroomam ne may doomi Cheikh Ignatius Mouhamed Fadal la fadlan min fadlina wala fu dalaay géen min maxti dinaay ranaa bal inna naa fu dalaa ki a seex dee calaw maa njaate faati mbay ak maa njaate ñu mbég mbéri daaw ngo ne xay noote seex dee calaw maa mi seex maxtaar borom yàlla neena waskur binal karimi dee calaw wala si bi ak mi naalal ulaw saatun la woo xamala ko sudaanu maa la ma naa sudaanu seex saat neena maa nduroog sama maam sama man maay sama maam mbëggeel gi ma bëgg sama maam raw na mbëggeelug layla seex saat bu neen abqa ila nafsin min layla wa tarat waay wala tuqaarin oo jurdum wala daad wa kayfa laaw wa huwa alxayri xalqi xaatibatan أتاه رب الورى ما لم ينل أهل من المعارف من نار تسلل بالكل عليها النار يخفى به كما مجرني بل الجنب بس من ما قدر يلنب بس borom xëy loo te janjaari war sa jaay waay seex da calaw sulli naa neew yaa ndar dekkal na bay la njaay sëm sëmba wax loo na Omar Fall fa lompul janjaari bar sa yaa sulli neew yaa ndar baayu xadeg naar baayu xadeg naar way yéen ñëpp ngeen ànd na dellu sàbbal yàlla sunu borom xul waa laawo يا رباه moo gën ñii fi ne gën ñëwoo fi nekkoon gën ñi bëgg a ñëw kenn du moom Seydina Maame bi may way yàlla ko def ak xaar dëkk bi ma soññ di Touba sëñ ba ma ne na mahab mahabat yal maxtaara sayidina xubbil maqaaniya wal ahlina wal walada sëñ ba ma ne na dami wa ahli awlaadi fi nala abdan xadiman lawa qaana li sanada asaakum asaakum ya rabbi mooy maam la ko soxna loo borom tey fa bay la mu ngi noonu